mbokk yi salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu xam naa suñu nuyoo duñ ko guddal dañuy naqarlu rek li ngeen yëg yéen ñëpp muy ñaawteef bi am ci sunu sëriñ sunu sang sunu bàyyi sunu yaakaar sunu soppi sunu lépp Mawlana Cheikh Ahmed Tidiane Ba bu Madina Gunaas alxalifa eh, yooyu xew-xew boobu yaakaar naa boobu léegi nit ñi ñu ngi ci jokkaloo. ñu nii ñu ngi ñuy woo di ñu laaj nu mu demee nu mu demee waaye ñun tam ñi ngi jokkoo ak njaboot gi eh, fa tabaarakallaahu jot nañu Thierno rajo Wane léegi di ci sottanteeg moom xalaat di ko ziyaara ku nekk xam na ko mu nekk ci jegeñaale Thierno yi di njaboot ci moom. waaye li ñuy def comme déclaration mooy ñaawlu lu mel nii di ñaan rek autorité yi ñu gën ñoo dimbale veyu ci suñu sécurité kilifa yi yàllaa leen di aar ñoom yàllaa leen di aar. ndax bu fekkoon du yàlla leen di aar kon dina demee neneen waaye lu leen yàlla aar aar worma bi moo tax ñuy ñaan ñu gën a yokk sécurité yi ci wetu suñu kilifa yu tëdd yi ñoom ñëpp nag ci bu ñuy génn di ñëw ci mbooloo yi ndax koo xam ne àdduna bu yëpp lay diir te li contour euh, suñu façon islam bi dafa bare te ku nekk dégg na fan yëpp am na yu ñuy doon ruumandaat di ko ruumandaat su lu mel ni xewee na dafa am lu muy joxe. am na loo xam ne nag bu ñu xaar ba yegg ca nañ teel a jël suñuy disposition su fekkee état mënu koo jëlit njaboot yi nga xam ne ñoom ñoo war kilifa yi ñu jël seen disposition parce que àdduna bi ak Sénégal fi mu toll nii laaj na nag taxawaay bi ñu ñu xoolaat ko bu ñu xeeb dara voilà loolu loolu lañ ci njëkk a dawal comme kàddu di mosawu ca nax ma Tijaan di mosawu njaboot gi yëpp mosawu sunu kilifa sunu mag sunu baay sunu lépp euh, ku nekk xam kook cernu muy cernu sirajo an ñu ngi ko koy mosawu di ko masawu euh, Thierno Ibnu Omar Thierno Jalal tabaarakallahu Thierno Bachir fat Fatxu Diin suñu mag suñu xarit. ñoom ñëpp ñu ngi leen di masawu lii parce que ku xam Thierno xam dayoom ak fi mu toll ci njaboot yi daa xam ne lii du ko gën a métti ci ñun amul. waaw kon nag euh, vraiment ñi ngi koy ñaawlu waaye di sant yàlla parce que maa ngi jokkoo ko Thierno si rajo mu dama xamal ne ma Thierno position bi mu duggee ci oto bi ak bi muy génn ni mu fi mu fi mu toogoon sax bokkul nga xam ne rek nitu yàlla. Eh, yàlla moo koy aral boppam yàlla moo koy sàmmal boppam ku yaakaar ni benn sàmm sugum njaay la rek da ngay nax sa bopp waaw yàlla aar na ko dem tey soog a waaye daal li ñu mën a wax ñun ñii njaboot nu gën a bàyyi xel suñu kilifa yi parce que dafa am loo xam ne neexu la wax waaye nañ ci bàyyi xel daal waaw nañ ci bàyyi xel bu baax am loo xam ne bu ci bu ci bu ko état jëlul mu nekk dispositif buy ànd ak ñoom daa iman ah parce que ñoom duñ tàggoog mbooloo moment bu nekk ñi ngi tàggook mbooloo te ay mag lañu te am na loo nga xam ne que daal. nañ ñu ci dimbale ci suñu kilifa yi protéger leen yàlla protéger na leen ba noppi waaye ñu dimbale ñu ci sécurité bi ndax am na loo xam ne rek buñ ko bàyyee mu mu continuer nii rek eh, ci tas réew mi la jëm te ñaan nañu ko yàlla kon nag nañu taxaw waaye balaa état di taxaw sax ñun ñi njabootu kilifa yi dañu taxawaat xoolaat suñu taxawaay bu baax a baax a baax ci wetu kilifa yi doonatul ku mu neex am accès ci sëriñ bi amul ci xadara bi nga bokk amul ci tarixa bi nga bokk mag dafa am foo xam ne fu muy toll dootuñu bàyyi kenn nga di ko ñaay dootuñu bàyyi kenn nga di ko ñàkk kon loolu itam ñu ngi koy gën a dénk njaboot googu ak jëpp njaboot ci wàllu euh, tarixa yi ci Sénégal yëpp ñu gën a bàyyi xel sunu mag ñi di ñaawlu daal li xew di ko tiislu di ñaan ñi ko def fu ñu mën a nekk yàlla leen yàlla weer dafa am loo xam ne nag dafa ëpp te trop c'est trop tabaarakallaahu ñun amuñu lu dul sunu mag ñu tedd ñi nga xam ne seen lépp leer la seen lépp yaakaar la du nangu mukk ñu di leen foye du ñu nangu mukk nit di leen fitnaal kon nag lii daf ñuy joxaat rek beneen passif ñu jogaat xoolaat suñu taxawaay xoolaat suñu bopp gën leen a ñàkk gën leen sécurité gën leen a sécuriser ba nga xam ne dootuñu may kenn mu jege feneen surtout ku ñu xamul di am accès ci ñoom loolu moom nañ ci gën a gën a bàyyi xel ñu koy ñaax fu ko defee rek maa ngi loolu laa ne woon dinaa ko wax ndax foofu fu ne ñu ngi ma fay woo wax dëgg yàlla ndax xam nañu suñu lien ak ñoom euh, waaye itam man tam maa ngi ciy jokkalee ak ñi ma ci mën a jot ñëpp ndax mbir duñ ci mën a wax rek te fekk amuñu ci benn xibaar su defee loolu la ñu ngi ci jokkoo Thierno Siraji wan waaye alhamdulilah ñi ngi sant yàlla dinaan xalifa bi yàlla dolli ko aar yàlla dolli ko sàmm ñi ci e, rot yàlla leen yàlla tabaarakalaaw teero gën man dem waaye itam ñi nga xam ne ñoo ci gaañu it yàlla leen yàlla e, e, defal wér defal leen sifaaw waaye li junj la li benn cax la rek ñu gën a mën a veyu ci sécurité xalifa bi ak beneen xalifa bu mun a doon ñu gën leen a bàyyi xel parce que nag ah dafa am loo xam ne ay nit yàgg nañ di ko bëgg waaye amuñu buntu suñu amee bunt rek euh, dana demee neneen kon yàlla ñu yàlla suturaal yàlla dimbali ñu waaye rek xamuñu ki nu ko seqal mooy kan moo tax waaw waaye xam nga kii toogee ci place bi dugg génn changé beneen position beneen place bu mu daawul toogee mu toogee ko kooku xam nga ne xam na li xew kooku ànd na ak yàlla yàlla ànd na ak moom fa tabaarakallaahu yàlla na yàlla gën nu ko sàmmal gën nu ko wéral waaye ku yaakaar ne da ñëw rek ñaay suñu kilifa yi am li nga bëgg yaakaar naa dina la coûter cher te ñu ko def yalla leen yàlla weer bëccëg ñu gën a taxaw gën a bàyyi xel suñu bopp gën a bàyyi xel ñu nu amul lu dul ñoom loolu rek mooy li ñuy noon dañ ko indi ci kàddu gannaaw buñ ci jokkoo ñu ci war a jokkal yëpp di masawu coono euh, di masawu lépp ci lii tiis la ku xam Médina Gounass ak ni ñu mel ci Thierno ak ñun ñii ñëpp sax amuñu sago ci Thierno nga xam ne lii xew dépassé nañu lool waaye nag danañu gën a jàngal li ci kanam yal nañu yàlla defal jàmm ñu ngi ziyaarawaat Thierno bu baax di ko ñaanal yàlla gudd fan ak wér ak njaboot gi yëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala